jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun mbokk internet bu ci m TV Sénégal jaa ngeen jëf ci teewlu bi. cant ak ngërëm ñeel na leen mbokk not yu 5M TV Sénégal xibaar yi dañuy àddu ci kàddu yi nga xam ni kon njiitu réew mi yëkkati na ko jagleel ko kon taskatu xibaar yi li Babacar Fall moom taskatu xibaar la foofee ca RFM daal dinay àddu mu ni état wu Sénégal wala njiitu réew mi kon moom mënoon na def leneen kay lu dul koy di ŋàññi rek lile nga xam ni nag moom mooy kër yéenekaay yi ndax moom la ñu doon xaar ci moom kon jëm ci réew mi ci kër taskatu xibaar yi defu ko bedd yoon moom Babacar Fall ginnaaw kàddu yëkkati na ko kon njiitu réew mi ba mu rekk day yëkkatee kàddu ñaññi kon taskatu xibaar yi ci talaata gi ginnaaw ouverture assise de la presse francophone bañ doon amal ca jam ñaajo mu jàpp ni kon njiitu réew mi la mu jàppee ni file ci Sénégal nag moom ab théâtre la jëm ci revue de presse bi mu ni loolee kon tegu ko fenn ginnaaw gi presse bi nga xam ni kon mu ngi fi di liggéey liggéey bu am solo waaye itam di wax jëm ci wàllu actualité nag ñu bari sax ñu ngay jàngee foofe ci CESTI ak itam mi rek la nga xam ne liggéey nañu ko file ci réew mi mu jàpp ni kon loole warul tax tey jile mu taxaw di leen ŋàññi saa su nekk waaye la ñu war a wax kay ci Sénégal mooy enjeu ak perspective yi nga xam ni bëgg nañ ko file ci Sénégal ca noone kon presse sénégalaise ci li nga guute gi nga xam ne ci la daal di nekk ñu génnee ko ci